bu yàggul dara dañoo gis mu def ab déclaration ci ab vidéo bi nga xam ne da doon expliquer lan moo tax mu jël ndaare xam nga loolu doy na waar kuy expliquer lan moo tax mu jël ndaare donc indi na ay explication jéem naa indi ay lay mais lay yooyu seetalu ko lu tax seetalu ko mooy moom moo tudd ba tudd PACASEN te fond PACASEN comme ni ñu ko waxee léegi léegi mi ngi nekk loo xamante ni ci collaboration ak partenariat la jógee ak euh, euh, banque mondiale ak état du Sénégal nga xam ne dañ koy cëralee maire yu nekk Sénégal wala boog yenn maire yu nekk si ville yi ak. te fonds PACASEN daa am ay critères yoo xam ne faw nga remplir ko moom mooy tax ngay mën di si bénéficier wu. waaye tamit ci loolu lañ lay nattee comme moom nuñ koy waxee ci loolu lañ lay xaymaa ba nga xamante ni dinañ mun a am. classement boo xam ne dañu ko génnee wax kat ñii ñoo gën a góor góorgóorlu ñii ñoo gën a respecté loolu te li ngeen xamul ci classement boobu mooy boo ko respecté rek normalement sa réew da kaa war a sentir ñi fa dëkk dañ ko war a sentir ñi nga xamante ni ñooy yeewoo biir géejawaay par exemple dañ ko war a sentir te loolu kenn gisu ko fi muy benn poñ. fekkee géejawaay dafa jël ndaare ak géejawaay fu mu nekkoon loolu mooy leeralaat ni géejawaay jóge na ci fu sori daanu si suuf maanaam jóge na si avion daanu si saret ndax géejawaay kenn mësu kaa xamee mu am problème yi nga xamante ni moom lañ tënk sànq mooy wàllum éducation wax nañ ko. mooy aussi ci wàllum sante gisuñu dara loo xam ne def na ko jaru sax ñuy lim fii la def al gisuñu lenn loo xam ne def na ko malgré nag mi ngi génn di wax ay wax ne def na lii ak def na laa boo xoolee aussi ci problème social sa waay amul lenn loo xam ne def na ko soo xoolee tamit ci euh, li nga xamante ni moom mooy littoral bi yooyu nga xam ne mooy ay poñ yoo xam ne jukki woon nañ ko léegi amul lenn loo xam ne def na ko lu dul wër peut di wax beneen bi aussi moom mooy li nga xam ne nee na génnee na ko muy xaaju mil xaaju milliard yi nga xam ne génnee na ko def ko muy ab investissement la wax la ko def non du investissement fonctionnement la lu si ëpp budget de fonctionnement la lu tax ma wax loolu mooy bu fekkee danga jël lu toll ni si téeméeri million ak fanweer ak lu teg nga def ko ci aménagement paysager biir mairie bi la concerné lekkuma ci naanuma si yëguma ko ñi fi toog lekkuñu si naanuñu ko naanuñu si yëguñu ko amul kenn ku si jëriñoo biir géejawaay mu doon loo xam ne pelouse la bu toll ni benn néeg nga def si ñaar wala ñett ne mooy 134 millions loolu la wax mais may nañ ko nañ d'accord si ne sax loolu dëgg la def na si 134 millions mooy euh, téeméeri millions lu teg wante ñun dañoo yaakaar ne est-ce que 134 millions yooyu noonu mu wax moom la waroon a def foofu wala moom la waroon def biir géejawaay ba ñi ngay yeewoo géejawaay mun cee mun cee mun cee jëriñu loolu nag laaj la bu ñuy samp beneen laaj bi ñuy samp tamit mooy li mu wax toujours ci vidéo bi dañ koy tontu lu mu wax toujours ci vidéo bi ne dafa def ay pavage ay dër yu jógee euh, croisement Béthio jëm ba rond-point Canada benn dër la boo xamante ni dañ ko wéer ci benn miir rek tàllal ko muy dem amul benn benn benn solo ci dundinu waa Géejawaay beneen bi mu waxaat ne xam naa ne njumte bu réy la def foofu te dootu te du ko mën a du ko mën a du ko mën a layal tamit dane dafa jóge dafa def ab dër pavé jëlee ko euh, croisement Dial Mbaye indi ko ba fii di marché Maam Diarra dem leen foofu am na ñi nga xam ne foofu lañ dëkk ñu ngi fii toog gisuñu waxuma un centimètre carré axuma un mètre carré mais gisuñu fu ñu jàll ay pavé di waaj liggéey amul. malheureusement aujourd'hui les attentes on été bernées les attentes que nous pensions du maire non pas été réalisées le maire dans sa vidéo nous